jërëjëf jeuf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di bekk di leen ziar bu baax euh, di leen jaalewaat li ñu bokk yenn ku nekk xam na ne ñu ngi kër Mbaye Fall président Lat Diop mom la fi woy juróom baye ko ñu ngi koy jaalewaat bu baax di ñaanal yalla mu yërëm ko te xare ko aljana ci barki Serigne Touba ñu fekk fi nak ko xam ne muy liru jaan bokk ak dekk dëkk way muy monument bu way ci kanamu Lat Diop ak ci ginnaawam lepp lu mëna xew da ngeen koy gis mu ñew taxaw liru ñi ngi lay nuyu di la jaale li nga xam ne moom bokk mbay ñoo lay fay mm-hmm. di leen nuyu yéen ñëpp vraiment seen taxawaay ñun ñoo ko bokk ku ne mën na ko jaale sa morom nit ku ne fu nga dëkk nga am te ñun géejawaay lañu am te fa lañ dëkk ay doomu géejawaay lan laaj Diop mu nekk doomu géejawaay suma yaram suma yaram dafa daw. ndeysaan barki Serigne Saliou Mbacké li ma gis fii neexuma suma yaram dafa daw ndax benn affaire dafa am. waaw Lat Diop doomu Sénégal la. doomu réew mi la. doomu géejawaay la nekk ci ay tolof tolof waajuram génn àdduna. gisuma fi benn politique ko autorité politique sain gisuma fi benn autorité politique sain kon nag moom su génnee na xam boppam ak ñi muy àndal nii jaruñoo àndal du non si jaruñoo àndal. dik gisuma fa benn politique sain. dik gisuma benn politique sain. police sport gisuma benn politique sain tey waajuram làqu ak waajur ni mu fooree kii di reyante ndax yéen di xeex ndax yéen ànd yéen bokk ngeen bokk xaw ma coalition ah man xaw ma coalition sax mooy ànd du ah. comprendre gisuma bi. pour benn politicien loolu dafa ñaaw kon li ñuy woot du dëgg si ñoom bëggante waxoon naa ko fële. waxoon naa ko dikk dama koy waxaat tey lii gën na ko leer lii gën na ko firndeel. gisuma benn autorité politicien ku dul euh, kii laa gis démb ci armée la euh, Badara Gadiaga kooku sa xarit la Badara Gadiaga gis naa ko démb ca fële may wax ñu yónnee ay nan dañuy yónnee ay nag lan mooy nag jëm woogu dàq lépp nit su nekkee sa naqar ngay ànd ak moom guddeeg bëccëg comprendre nga da nga ko war a taxaw suy neex da nga ko war a taxaw. muy naqar da nga ko a taxaw laaj Diop doomu géejawaay la ñun ay deretu géejawaay mooy daw suñu yaram moo tax ñu taxawal suñu teewaay fii tey waaye ñi xam ne ñoom la àndal ñu nekk ay politiciens comprendre gisuma ci kenn fii loolu dafa ñaaw kon li ñu wootu dëgg si ñoom li ñu wootu dëgg ci ñoom waxoon naa ko ca dig nag du dëgg ci ñoom man su may ànd nit xam nga laa lay ànd ak nit gore ak ngor man laaj Diop defaluma dara xam laa ñoo ku dëkk géejawaay muy jàppale xale yi guddeeg bëccëg di taxaw nekkee su ay toof toof kon dañ ko war a jàpp dañ ko war a taxaw su suma waajuram làqu politiciens yëpp feroon ñëw ñi nga xam ne ñoom la àndal ñi bokkul ak parti sax dam cee waroon ñëw teew comprendre sàkkantuma ak ñi mu bokkal parti ak ñi may ànd kenn ñëw fi gisuma fi kenn benn politicien Badara Gadiaga daal nee naa ko sa xarit la Lat Diop Badara Gadiaga mooy sa xarit ci politicien ñi ci des duñu dara. mais dégg naa Amadou Ba yónnee na. waay waay dimbali nit ñi mooy yónnee teew moo ëpp solo waay loolu tey ni mu mel moom mu nekk liireeram mu nee mooy ànd moo moom man sama yoon nekku ci ñooñu de man xam nga Lat Diop bi moo tax ma ma topp ko nii ni mu dëkk Géejawaay ak Aliou Sall li mu dëkk Géejawaay moo taxoon ma topp leen ñuy jàppale xale yi Géejawaay loolu taxoon ma topp leen waaye man ay affaire politique nii lii affaire dëmm laa dañuy lekkante ah. mais boo waxee ah, politique. ah oui dañuy lekkante affaire dëmm la <laughs> ndax lii ma gis nii dafa ñaaw sa xunta sa xunta dik dik dik gisuma fa politicien ah. Ah, police sport gisuma fa kii te waajur at ni mu fooree ci doom li waajur ni mu fooree ci doom muy kilifaam di papaam génn àdduna làqu yow nga nekk ci biir caabi féete la ginnaaw ñoom ñu nekkoo fi ñoom ñu war a taxawula la ñu wax ñoom nga àndal ñu war a ñëw taxaw la kenn ñëwul. ñii bëgguñu la de dañuy ànd ak yow ne ndax la man gisee nag nit lan laaj xam nit da ngay am fit nit da am sañ-sañ nit da ngay nekk góor mbaa nga nekk leneen comprendre nga dafa am yoo xam dafa ñaaw lii dafa ñaaw sa xunta man bu ma ñëwee fii damaa rusan dama ruus maa ngi nii il est trois heures presque añ nan ba pare gisuma benn kilifa dafa ñaaw man nag maa ngi ñibbi sama xol neexul. waaw taxawal bala ngaa dem. waaw nga ci kaw politiciens yi. waaw lii dafa ñaaw mais waaw daawul nekk ak politiciens yi rek. non waaw am na ñu mu daan jàppale. waaw ci ñu ñu xam. moo xam mbër la muy ña moo xam woykat. waaw loolu lépp dëgg nga ñooñu tamit gisuñu. waaw non am na ñu fi ñëwoon démb. Ah. am na ñu fi ñëwoon te tey am na ñu fi ñëw. Ah. ñooñu ñëw ñëwaat man xam nga lan moo tax may la politiciens yi ñoom lay àndal pendant di reyante ñu bokk bëgg-bëgg waaw waaw ñu ko doon topp bi bëri gisuma ci kenn li dafa ñaaw ah mu ne est-ce que tamit waay waay yow xoolal lii moo fi solo fi ay mbokkam nekk ay waajuram nekk fi ay dëkkandoom nekk fi ay magam nekk fi ñoom ñoo fa waroon teew ñu xam ni Lat Diop am na ay ñi am na ñu mu àndal am na ñu ko bëgg lii li mu àndal jar nañoo àndal waaye kenn teew fi du benn leader politicien lii dafa ñaaw man damaa rus sa xunta sama yaram dafa dawan lii dafa ñaaw lii dafa ñaaw dafa ñaaw laaj Diop liggéey na ci réew mi loo xam ne ke ah, ah waruñu koo faye lii liggéey na Guédiawaye loo xam waruñu koo faye lii comprendre man dama rus politiciens yi nag. autorités yi dëkk Guédiawaye gis nañ fi kenn. non gisuma fi kenn non démb ñoom Baye Ndiaye ñëw nañ fi. ñoom Baye Ndiaye waaw ñoom ñëpp ñëw nañ wax dëgg yàlla waaye politiciens yi ngay wax gisuma ci kenn non Aliou Sall ñoom ñaar ay doomu ndey la ñoom Aliou Sall doomu ndeyam la waaye nag dama xamal benn affaire Aliou Sall ñëwul ah doomu ndeyam ñëwul. Aliou Sall ñëwul ñëwul. Néné Tall ah? ñëwul Aliou Sall ñëwul. Khafor Touré ñëwul ah? Racine Talla ñëwul. ah ñëwul. Racine Talla ñëwul Khafor Touré ñëwul. te ñoom ñëpp ñoo bokk parti te ñoom ñëpp ñoo bokk parti. ñoo bokkoon benn parti di ànd di liggéey dafa ñaaw. non lii dafa ñaaw lii dafa ñaaw lii dafa ñaaw. vraiment li dafa ñaaw Saliou Khoule dañ doon waxtaan de ma ne ko lii ñaaw na Saliou man sama yaram dafa daw ma ne ko lan ana yi laaj Diop doon àndal ana ñim doon tiitaroo ana ana ñi mu bokkal parti ana ñi mu bokkal géejawaay comprendre nga lii dafa ñaaw sa xunta lii dafa ñaaw laaj Diop su génnee war naa xam boppam ñii bëgguñu ko ah. lii bëgguñu ko ndax si la nit su nekkee toof toof nga koy xam ki la bëgg su nekkee si naqar ngay xam ki la bëgg waaye doom laaj Diop fa mu nekk xolam xolam neexul ndax li tax xolam neexul waajuram su làqoo tey moom nekku fi ñu caabi feedu ginnaaw ñoom ñëpp dañ ko waroon taxawu waaye taxaw waaye soo génnee Lat Diop na xam sa bopp ñii bëgguñu la bëgguñu la tey bëgguñu la ëllëg dañ lay sàkkatoo ndax yow xam nga ne tubaarikàlla macha allah jàmbaar la la Diop. gërëyee la ku bëgg géejawaay la yàlla na ko yàlla defal jàmm. ah est-ce que du Lat Diop day déranger géejawaay. ah nur na ko de lii ma gis nii. nur na ni Lat Diop day déranger géejawaay ah lii ma gis nii wane na ko waaye nag Lat Diop yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na génn delluwaat ci njabootam waaye daal wax dëgg yàlla waajuram wi làqu yàlla na ko dëddoo jàmm yàlla na ko dëddoo jàmm yàlla na ko dëddoo jàmm yàlla na ko yàlla yàlla na génn fa mu nekk waaw mbër yi man su ma ñëwee ñëwal naa mbër yëpp ndax tey xale yi samay rakk lan ñoom su ma ñëwee man ñëwal naa mbër yëpp su ma ñëwee ñëwal naa mbër yëpp ndax tey jee fi am na fee na ay mbër yu fa nekkoon démb ci revue de corps bi su ma ñëwee naa ñëpp waaye ñi njëriñ waxal politiciens yi ñim doon àndal ku dégg di xeex ñoom di la àndal waaw d' accord waaye ñi ñu doon jàpp amuñu fi teew loolu nga wax dëgg la ñi jàpp amuñu fi teew waaye man fi mu ne tey sama xol neexul damaa mer ndax yi dafa ñaaw ñeex xam nga ay jonde ay nagak ay xarak ay ceeb yooyu am na lu ko gën teew jëmm ji ñëpp gis la xam ne yéen laaj Jóob mi waaw dama bu euh, laaj Jóob may leen laaj Jóob ñii la doon àndal ay mbokkam gis ko ay magam gis ko moo gën a rafet waaye lii ñu def dafa ñaaw man damaa rus sa xuntoon ndeysaan mbokk yi gis ngeen ko Lirou jaan amul lu ko neex ci dëj bi moom Géejawaay la dëkk waaye ñuy ñaanalaat rek ki nga xam ne mooy Père Mbaw Kaay Père Mbawukaay euh, ñuy ñaanalaat ki nga xam ne rek mooy suñu wayjur yu fi jógee di wayjuru Lat Diop euh, Père Mbaw da nga am problème ci sa biir néegu sëy moo xam euh, kattan bu néew la wala manqué man yu wala sax jafe-jafe gaaw a daanu seen gaam kàttan nag dafa ñëw pour saafara leen bépp tawat bu ngeen di jàkkoonteel ci seen néegu sëy ku bëgg si gam kàttan boobu da ngay woote ci 77 490 09 20 ak seen gaam kàttan jàngoro yi sëy dafa jeex tàkk ci même réew